ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur ah, di leen nuyu internautes yi national di leen bëggee bu baax a baax comme ni ñu koy defee ah actualité lañu la ñuy topp ginnaaw le 25 bi mu passé gis nga làmb na mu fa amee woon tey jii nag ñu ngi toog beneen champion champion bi bëre woon le 19 décembre diggante mag nga xam ne mooy Alioune junior ñëpp jàppoon ne xale yi ñoo fi jëlee mag ji waaye kii la professeur de professeur de Lamsar en Tidiane daal di indi changement bu bees indi teg fi leneen bëri fi bëri bu rëy am fi ndam ñun nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo ñu xool naka la préparé combat boobu Tidiane maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum gannaaw ba ci sant yàlla jël si ma sant suñu ñaari waajur ñu nuyu waa Leewtoo di nuyu waa Akhlu Làmb yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal réew mi yàlla fi jàmm yàgg. di félicité ñi nga xam ne ñoo doon jàpp ñu doon jàppale si combat bi. météo na waajuwaay bi yàggoon na mooy yàlla def na ci jàmm. dugg nañ ci bisimilah rahmaani giri ci alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. ginnaaw bi ñu nuyoo la nga war a am combat diggante koo xam ne mën nañ ne yaa ko ëpp expérience ci làmb yaa ko gën a féetee mag ngay bëre ak moom est ce que amu woon benn pression si yow. waaw làmb làmb noonu la moom xam nga rek ñun bëri nañu suñuy morom bëri nañu suñuy mag suñuy rakk lañ mën a bëril. Mm-hmm. fi ñu toll te nag euh, daanaka rawanteeg nu mu loolu si làmb sax dañ sa ñëw teel dugg rek si làmb. Mm-hmm. mais ñun xam nga làmb moom. du du ñu andi pression ci lamb wax dëgg yàlla. Mhm. Mhm. ñu gis Tidiane Faye bi muy dugg si mën naa ne sa mag Mansour ñoo ko dalal mu indi cosaan bu bees indi mystique 100 pour cent combat bi fa la woon non pourtant andu ñu mystique de. Tidiane sa dugg si cosaan rek nga yëg cosaan. waaw cosaan rek xam nga laamu cosaan la mënuñ ko dindi si cosaan. laamu mhm. cosaan dong la. ma xam ne tey jii ku mel ni suñu ñoom papa Robert ku mel ni suñu ñoom papa sama su ñoom maam jam suñu maam maam jaman ku mel ni ñoom Manga. ñooñu nga xam bu ñu doon dugg si dañuy xajam xajam bi ñuy xajam mooy dañuy xajam ci séeréer moo tax cosaan mënut a ñàkk il faut ñu delloo si ko. Mhm. parce que làmb démb la du tey. Mhm. Mhm. kon il faut ñu andi làmb démb tey jii nii pour xale yi nga xam ne ñoo topp suñu kawam xam ne ñii lii lañ doon duggee moo tax ñu duggee noonu. mooy dara. mu ñëw baaxu baaxu bu neex public public yëpp daal di jóg ba nga gëstoo gis public bi topp sa gannaaw lan lan nga yëg. dañoo namoon tijaan ak tuusam rek. ak cosaan gi ñu delloo si waat. loolu du leen. waaj nañ lépp lu ñu waroon waaj. Mm-hmm. bu ñu ñëwee te répété wuñ ko loo ci xamul defuñ si open press parce que làmb ji daf ñoo tolloon foo xam te pour ñun jaruñu woon ñuy def loolu. Mm-hmm. parce que suñu suñuy supporters mm-hmm. suñuy encadrement dem na benn moment boo xam te ne làmb ji sa tey suñu ba ñu ne non man may leen na non jarut ñu def open press. nañ concentré rek ba yàlla may ñu ndam pare lu ci ñëw ñu xamaat ko daal. Mhm. parce daa am ci luñ jóge woon war nañoo xam fu a jëm. Mhm. loolu taxoon loolu mais buñ ko répété a garaaw. Mhm. ñu ci biir géew gi Habib ne prip dëgg décortiqué ma naka nga bëri combat bi diggante ak say junior. waaw benn sama rakk la. làmb moo ñu boole rek. làmb moom ku ne da waaj say mbokk waaj. xëy na moom dayo bi mu tegoon làmb ji. ak ñi ko encadrement ñu ko encadré dañ ko desee wax. parce que fi mu tegoon làmb ji la pour moom day ñëw rek jaar jàll. Mhm. loo tax parce que cër bi si boppam daaremaa même si communiqué am sax dama doon sar ay communiqué mais dafa des. des gi mu des dafa doon wax ne carrément dafa dem retraite dama ko fay delloowaat parce que dem na ba ñu koy teg consultant muy muy consulter. Mhm. bu consulter consulter ci télé. Mhm. bu damaa xam ne wax bu ñu ma waxee rek ma ne noo garaawut waaye ku dem retraite ñaaroon amut benn yoon da ngay dem kuy bëreeg say rak écrit ba pour ñu daan la problème la. Mhm. mbaa ngay kontaan ñoom chaque jour. te ñooñu mu leer ma a ñooñu ñoo ko ëpp doole moom. Mhm. kon man am na fu ma teg sama bopp. Mhm. arbitre ne pip adversaire ñëw daw jël sa tànk nga pivoté ko dafa mel da ngaa amoon lecture de combat jour boobu. waaw nga moom parce xam naa ne day jël kër la même sama rakk yi ma doon contact loolu lañ ma wax kii day jël. looloo tax bu yéexoon sax man ma jël ko parce dama doon xar. bu nekkee ñëw taxaw rek. man dinaa ko dama koy jël si. làmb la da ngay séntu fetal ñëw fit. waaw moo tax bi mu at bi suuf lay fër génn suñu léewante léew léewta bugg di ku nit natt sa morom. booy gisee benn instant damay teg paapu gën ko jege. bu déclenché ko mun naa ko jël bu jógee làmb ci bu ma ko jëlee làmb ci jeex. xamoon naa ko suuf xamoon naa ne bu ma ko jàppee làmb ci jeex. waaw léegi nag il faut moom mu andi fooram te fooram moom mooy song. waaw loolu tax ba mu jógee jël sama tànk ma lem sama tànk ba pare dóor ko tànk mhm. bu ma ko dóor tànk mu def njaab di daw ma taq si ndigil mhm. mais bi ma demee ba yegg si ndigil carrément la kat api mhm. kon loolu jaratu fa def dara daal làmb ji jeexee par kadap bi la professeur mooy wax bi mu jeexee kadap bi loolu moom nga bëggoon wala non làmb moom victoire rek bu ne am na am na bu làmb bu gën a yéemi sax kadap moom mooy ñëw bëre wërewoo jël jël am ba avertir te yàlla dogal na ñun suñu bos def nañu noonu parce que am nañ victoire ndax ci par ab quatre ab bi jël la. Mhm. Mhm. ayca mu daal di bëree ba pare Alioune Seye jàll na lan moo nekk ci kanam gi nga xam mooy Tidiane Faye le professeur de Lamsar. waa noonu ñun ñoom ñu ngi préparé rek ñun dañu am ay kilifa muñ xëy si xëy xëy rek di wax ne benn mbërëm benn mbërëm. Mhm. loolu tax mais ñu ngi waaj képp ku ñu yàlla boole rek ku ci woon a bëri dinañ bëri ñoom. waaw am na ñoo xam ne yorool nañ ma bor war nañ maa fay loolu moom junj la rek. junj la ci loolu laa kafee li nga wax nii. am naa lañ la bor war nañ la koo fay ku ci mel ni Zos borom dóor dóoraat nga bëreeg moom mu am ndam sa kaw mu bëreeg keroog ak ki nga xam ne mooy Alioune Seye numéro 2 kooku daan ko te nee na bu fas yéene duggaat ci làmb est-ce que pare nga pour jëli sa revanche ak Zos. donc nee dëgg ma dama ne. loolu ko dama ne ku ma yoroloon bor daf ma koy fay man nekkuma fi di bëri xale yi de nekkuma fi di bëri ñoom de man déglu dama. rampe su ma man su ma live mbaa su ma dama ko rampe parce que gis nga taay bi ma yor mhm. su ma demee bay bëri yenn poids lourd yi mbaa bëri yenn ponkal kon dama xare su ma live ba yegg fi ma yegg mhm. booy bu bëgg a bëri ak man da ngay def prouvé bu bëri man benn mhm. ñi ma yoral boor nañ pare duñ ma fay nañ am na ngoru fay ko <laughs> man kenn laa gis mu leer mooy mooy suñu métier te Zoss bu làmb mooy métier am. ñu avance ñu pare Zoss pare nga pour jël ko. bu doon mu ngi noonu nag Tidiane Faye mooy wax ah ki nga xamante ne nii mooy euh, Baye Mandione daan na démb est-ce que pare nga pour jël ko. Baye Mandione mag la Baye Mandione ci ñi ma jàngal bëri ci la bokk. Baye Mandione magam la. Baye Mandione ci ñi ma jàngal bokk ci parce que ñun caaree lañ jógee dem Lamsaar. victoire dama koy yéene parce que ma ji bi mu am bi njëkkee am gàmm dama caa kaas. dama caa kaas bi bëgg a dee. parce que dama ne Baye Mandione ku ko xam du yàqu la am. Mhm. ñu dem ba gàmm bi di ko daggaloo ay wey yoo xam te ne wey amu fa. Mhm. léegi bu ñu dem ñëwee fii nii moom xam na ne carrément mënta daan bàyyi mu yoon. loolu tax noonu bàyyi mu yoon dañ koy ñaanal parce dafa bokk ci làmb nag. la dafa a bu xeexee nga kontaan. la. la làmb tëradi rek. wax dëgg yàlla la. mbër la nag. ci loolu ci gis. arbitre xanaa gisoo xanaa si vidéo yi mbër bi ko wax arbitre dafa am ñaari saaku première saaku yi ak deuxième saaku yi dañ ne la boo jeggee ba ci première saaku boo ko jëlee mhm. arbitre da nga gis mu ñëw attek na jàngaat texte yi nga xam ne moom la wax fii du Gàmbi mhm. fii Sénégal la ñun dañoo am suñu réalité fii nii yoo xam te ne loolu moom la CNG wax ne moom mooy sert làmb yi mhm. bu arbitre soufflé fur ngeen di dem saako yi dabul kenn ñun ñoo dabi saaku yi kon moom moo aree ba ca saaku ya bi ñu yeggee ñu dóorante gauche droite dóor na sax couche droite bu dal njoon mais njoon dékku na ko mu song ki njoon crocheté ko njoon crocheté ko ñu jóg mu mboot njoon di ko mboot colom arbitre bi ñu jëmee mboot colom ba fa da ngay gis arbitre mi ngi def nii jël amatu fa parce que boobu nee na leen carrément bëreetu leen waaye ay dañ koo xeex ak na teg loolu suuf ñun ay sportif lañ amul fu ñu demul bëri ji waaw ay te loolu benn parenthèse la woon dañ dellusiwaat ci nga xam mooy Tidiane Faye ci kanamam ñi mën nañ fa gis Zoss ñi naan Alioune Seye numéro 2 comme jël na junior Alioune Seye numéro 2 moo fi nekk temps yi daan na Issa Pouye daan na Zoss est-ce que par exemple pour jël euh, nga xam ne moom yoral na ma euh, revanche. Mm. moom dafa may fay sama bor. yow ngay fayee ko fu mu nekk nii. non non fayee du fayee konte sax parce que du force bu ko neexee mu ne bëriwul ma moom. Mm-hmm. bu ko neexee waaw mais làmb daal xam naa ne dafa am yoon. Mm-hmm. man lii sax dama sob di ko wax rek. Mm-hmm. ak xër bëgg a jël sama revanche ak moom. Mhm. waaye dama am kilifa nag. Mhm. ku mel ni Maxime Wargane ku mel ni ki nga xam ne mooy Cheikh Niang du sama président écrit mhm. ñu leen sant bu baax ndax combat bi passé dañ nañ ci façon coono bu ne. rey nañ seen bopp ci xaalis ci lépp. def ci man wax dëgg yàlla. ndax xam nañ ne tey jii nii daanaka écrit ba daanaka man maa fay mag. moo xam te ne damay jëmal xale yi chaque jour maa fay nekk ak ñoom. cër googu jox nañ ma ko xale yëpp jox nañ ma ko kon nag tey jii nii nii ki nga xam ne moom la combat gën a sës nii nii muy Balla Gaye dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam ak yi nga xam ne ñoo am combat yëpp waaw di ñaanal Siteu nag combat bu mu amaat yàlla may ko ndam parce que li jugee si combat bi passé neexuñ def boobu ba léegi amoon sorti pour wax ci maa ngi ci soog am sorti nii nii looloo tax kon mënuñ ko lu dul ñaanal ko parce que métti na combat boobu pare deux ans ak lu teg mu ñëw mu demee nii nii ñuy laalu laam it dina jox sa xaalis ak duñ jox ba dégg naa barki démb lañ leen jox jox seen xaalis. Mhm. loolu métti na trop. Mhm. nañu xoolaat affaire yi. Mhm. organisation CNG bi passé nii ku ne xam na ne le 19 décembre bi suñ combat bi xoolal organisation ba mu jaaree yoon. da ngay gis ne booy ñaaru du fekk ci tafaat tafaat du fekk booy ñaar kon sart boobu noonu kon kon fautif bi am na côté boo xam te ne CNG def na ko. parce que bu nekkoon dafa canaliser ñaar ñaari mbër yi ñaari non ñaari mbër yi sax canalité nañ ku ne am na fu mu toog waaye tambour major yi nga xam moom mooy jili ak Baye Demba ku nekk bu nekkoon yow yaay jàkkaarloog sa diw yaay jàkkaarloog diw. Mm-hmm. parce que ku xam ci làmb xam ne tàng na bépp tàng mais du yàq làmb. Mm-hmm. mais tey jii nii nii kenn xamul tamit ñoom parce ñun ñëpp ay mbër lañ. Mm-hmm. làmb ji li ci dëkk ak li ñuy waxal dafa ñaaw trop def na lii chaque jour ñu ne làmb lii ak ñu ne làmb lii loolu moom dañ koy bañ. moo tax ñoom dama bëgg ñu def sortie bu baax boo xam te ne ñoom gën a calmer seen seen làmb bu ne yàlla boolewaat nit ñu bëri. ñu bëri bu dee yàlla boolewaat tamit ku ne seeti morom rek parce que ñoom ñëpp dañoo toll si bëri. si dem seeti keneen Papa Sow dem seeti keneen waaye en daal CNG li ma ci wax nañ ci gën a veillé si côté boobu noonu. làmb ji ak arène nationale léegi nag li ciy def moom mooy ñoom nuñ gën a organiser affaire yi mm-hmm. mbër mu ne su ñëwee ñu ne la fii ngay yem mm-hmm. mbër da ngay gis ku dëkk dugg si ñu ne la demal a xam nga mm-hmm. loolu jamono ba jamonoy baax mbër duñ ko choisiral fu muy toog wax dëgg yàlla dangay ngay ñëw ñu ne la sa rawaan fii la nga dem tàmp ñu la demal fee nga dem fa bëri ak benn mbër bu mag boo xam te ne stade stade la woon du ma duggee teg sama cumukaay dafa ma fekk daal di may làkk séeréer ne ma woon fii nii mu ne ko yow ku la fi won mu ne ma boo daanee pare nga alma barki arxuwaan mbir mu mag laa la wax du ma ko wax nag. cumukaay daa fi ñu koy teg ay tegtal la. dafa am ay tegtal bu ñëwee la la fii A ak B. bu nekkee rawaani dafa jàkkaarloo fi nga xam ne du sa gën du gën. Mm-hmm. te mënoo fa bañ a jël lan ngay def. làmb ji ku ne xam na ne tey jii nii ni ñu ko defee. Mm-hmm. ci dayoo ci kii ni ñu koy waxatee sa enceinte bi. dafa doy waar. Mm-hmm. mbër waroon na choisir ne fii laay teg cumukaayam. benn mbër choisir ne fii laay teg cumukaay say say nit. mbaa say sëriñ nga dem si ñoom ñooy la tegal fii fii moo gën si yow te laabu ay rawaan la ay sarax laabu ay sarax la lépp ay sarax lépp lépp yar ay la léegi boo ñëwee la a ngay dem mbaa bee utal leen benn puxus boo xam te ne tey jii nii fa ngeen nekk loolu defarul làmb tey ji nii loolu moom sama papa Birasène dañ koy wax ñu gën cee xoolaat rek parce que moom dañuy déggante sama papa la wax dëgg te moom day seet sax du luy jëmale làmb karam mu koy def kon nag a veese loolu xam na ko bu baax séeréer la ñee ñi léegi du séeréer sax dañoo xam ne carrément làmb cumukaay kenn du ko choisiral kenn. Mm-hmm. loolu lay problème waaye jël A ak B rek. Mm-hmm. ñu ni ay tubaab. waaw Sénégalais loolu dafa bokk si kii daal te bañ dañu bàyyi ñi ñuy cosaan yi. Mm-hmm. mbëru doon dugg si yor ñaari yoo xam te ne day tàkk taal fi taal fi Sénégal yaay yëpp jug taxaw. loolu mooy problème bi waaye cosaan bi yëpp ñu fànq lu wax ñu li day yàq lamb li day yàq lamb li day yàq lamb mm-hmm. bu yàggee suñu cosaan day réer. day réer te lamb ji nag wax dëgg cosaan moo tax ñu koy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ayca kaddu yi leer na